jaajëfal leen yéen ñi ñu topp ci 24actu point com ñoo ngi fii nag ci marché waaw marché Ocass xam ngeen nag ngi daal di seet si woon ñeen ci ay jaaykat jaaykat yi nga xam si ne tamit dañuy jaay euh, li nga xam si ne mooy xeeti drap ay nuisette ay décoration yooyu nga xam si ne gis nañ ne décembre baa ngi jub si te gis ngeen ne ngelaw li mi ngi commencé upp ngelaw lu feex li mu mel ne tamit euh, par rapport buñ bëggee xam ba xam euh, tàngaay bi nit ñi doon nañ jënd wala tamit seddaay bi tamit ci lañ ko gën a yittewoo loolee buñ ci bëggee xam dara da ngeen ñi ñun topp ñi ci 24actu point xam bagage ba xam nan la ko jigéen ñi di jënde ak tamit naka lañ koy daal di fas yéene dundee seen alaaji ace aca topp leen ñuy def bi moom bagage yi ci lay gën a dox naa jigéen ñi dañ koy soxla lool ndax xam nga sedd bi moom ku ne xam na ne couple sedd lay gën a neex yaa ma gën a xam surtout décembre bi nga xam ne dafa jub si seen borom kër yi nga xam ne dañuy ñëw réew ma day sedd moodu moodu yi di ñëw ñu war leen a dalal tatagal leen teeru leen xam nga moom ci lay gën a dox macha allah sedd bi moom ñu ngi yëg suñu bopp lool moom macha allah. période bi moom yi ñuy soxla bari na waaw parce que bàyyi wuñ dara ndax euh, bagage yu jeeg moom yëpp la ñuy boole soxla ndax xam nga lu ne dañ koy soxla ci biir néeg yi waaw euh, yi nga xam ne nag moom moom la ñuy gën a bëgg mooy yi nga xam ne day nekk karité yi nga xam ne day ànd ak mante yi ak yi nga xam ne day nekk ay karité no bi ak euh, genre massage yi yooyu moom bokk na ci yi nga xam ne day gën a dox. parce que ku ne xam na ne seen yaram daf koy laaj ci seddaay waaw yooyu moom bokk na ci yi gën a yëngu ak cuuraay yi. Mhm. karité yi de dafa bari façon parce que am na karité boo xam ne pour ma wan la ñu gën a xam mooy bii waaw bii nii moom mooy karité góor bi moom pour forote góor la yaa mu gën a xam pour mu gën a nekk en forme mhm. am na karité bi nga xam ne tamit pour nob la waaw moom la ñuy woowee ñàppaa ko to sa koto ñàpp <laughs> waaw boobu moom baax na lool moo nekk nii waaw bii moom par tuuti leen ciy jaay parce que dafa nekk loo xam ne dafa jafe suñ ko amee liñ ciy am du bari te dañuy bëgg jigéen ñu baax ñëpp ñu di leen ci mosal ndax ku ne xam na ne chaque jour yaa ngi bëgg ki nga nekkal ngeen gën a déggoo gën a juboo te carte bi moom li muy def dafa am solo lool pour noob la noobu at moom bu baax la moom efficace lool <laughs> torop nuisette sedd yi moom am na am na ci yoo xam ne sax instant bi wàññeeku na parce que niñ la ko waxee bagage yi loo def commande balaa muy egsi day fekk duñ fekkante yi nekkoon day jeex parce que bagage yi instant bi dañ ko bëgg yu sedd yi ci ëpp kii mooy yi nga xam ne day fermé wu ak manto yi yooyu moom bëgg nañ ko trop macha allah. draps ak tam bëgg nañ ko parce que jéeg ji léegi dañoo service jéeg ji moom léegi macha allah dañuy def seen ensemble bu baax bu am jom dañuy def seen drap def seen nuisette def seen serviette. def nuisette góor gi yaa ma gën a xam bu ñu xëyee sax defaat seen garde-pain bu ànd ak garde-pain bu ànd ak seen napp dañ koy defaat dañuy tàmbali ci guddi gi ba xëy suba rek di joxe ndékk ñoom moom duñ bàyyi benn waa lépp pour àllaaj yi duñ bàyyi dara ba ci ay plateau yu am jom yoo xam ne pour accessoire guddi gi la yaa ngi koy gis nii waaye da ngay def say mouchoir say feuille mante sa ñoom bagage yu ma la doon wax secret de famille yooyu yëpp ci biir lay jëm. njaay mi moom fi mu toll nii ni ma la waxee ne heure bi la gën a dox quoi parce que seddaay bi moom kenn ku nekk yaa ma gën a xam doo lijjanti sa goro doo lijjanti si kenn dara. lépp loo xamante ni dañ ko ciy doxal rek pour jigéen ñi bëgg rek dañ ko ciy def quoi. dara yi nag moom ay façon la parce que du dara simple kese boo bëggee dara simple lañ la koy jox soo bëggee dara photo lañ la koy jox soo bëggee des na la koy jox am na yoo xamante kenn sax mënu ko wane si écran mais boo ñëwee ba seet suñu dox ba ak si danga nga ko gis normal quoi lu ci mel ni maanaam yaa ma gën a xam. lu ci mel ni serviette bi parce que couple la quoi serviette couple la bu fekkee tey da bugg bëgg dara bi moom la ñuy wax dara symbole loof la dañ koy def lii tamit maam genre wees la quoi parce que dafa rafet ci nit dafa rafet ci ci décoré quoi parce que yii tamit genre décaration yoo xamante ni maanaam yu mucc ayib la ba yi ma la mën a wax daal maanaam boo nobee si jëkkër daal. wala nga sa jëkkër di am neneen lu mel di la yeb ak di la def yooyu rek mooy loolu. ndege naa yi tamit c'est la même chose pour maanaam day tàkk ndege naa yi day tàkk def bëtëre taal mu tàkk parce que décoration la quoi dafa rafet ci néeg waaw parce que xeeti baax baax yi dafa baax ci jigéen ñi quoi parce que ñun ñoo leen fi nekkal bu ñu fi nekkutoon du baax waaw xam nga lii rek dafa neex ci doomu aadama maanaam nit amoor nit di ko dund dafa baax dafa dafa baax quoi waaw parce que amoor du question ay xaalis ak yooyu jàmm jàmm la jékki-jékki rek ne sa borom sa jabar nii dama koy def waaw ne ko booy tey lii daal la indil xam nga lii ma boo gisee du dara séerut dafa neex ci xol fi muy yegg yàlla rek ko xam surtout man bu ma ko joxee quoi man li may jaay koo xam moo tax ma koy jaay. période bii ñu toll nag moom jigéen ñi daan soxla yi ndax xam nga daa sedd jigéen ñi nag moom ñi nga xam ne moom danoo bëgg lu baax di defante yu baax moom daan ko jënd moom wax dëgg fa yàlla waaye nag fan yi nag moom marché bi daa xaw a sant njaay looloo tax waaye nag ñu ngi jaay ndànk-ndànk rek sant yàlla rek. sedd bi waaw waaw waaw waaw ñu ngi ñëw moom client yi moom ñu ngi ñëw moom uh-huh. macha allah moom dëgg fa yàlla. fer yi bii mooy kirista bi moo xew ci dëkk bi moom la jigéen ñi bëgg. Uh-huh. kirista bi waaw. bii mooy liminees bi. bii moom mooy tàkk guddi xam nga rek. si de lumineeru guddi bi la. waaw jéeg yi bëgg nañ ko ndax alaay ji dañ ko xaw a sopp looloo tax. beneen bi tamit kaare bi la. feru mhm. kaare la moom it jéeg gi bëgg nañ ko. seeru mhm. paquet bi 2000 rek lay génne. Ah. waaw mhm. waaw loolu daal la. am nañ ci couleur yu ne. am na ay blanc ay noir ay rouge am na couleur yu ne daal waaw. lan ngay gi nga xam ne kay nag moom toujours rek maa ngi wax ñu doolee góorgóorlu rek gën a mën a bégal seen alaaji yi ndaxte lool jeeg moom loolu la tax mu ñëw ci këram moom waaw ñi nga xamante ne bii ne danoo xaw a yeexit ma leen encouragé toujours rek pour ñu ñëw waaw def seen xeeti baax baax rek filaale sànneeku def lu leen soof <laughs> def lu leen neex waa loolu la daal décembre bi mu ngi ñëw mën naa mu gën a dox mais jamono yi nekk nii nag marché bi dafa xaw a taxaw ba nit ñuy xaw koo yëg bu baax a baax mais yàlla baax na daal. sedd moom jigéen eh, jigéen moom daanaka yu baax baaxee moom fer yeg ñoom ni muy sedd yeeg yooyu jigéen dañ koy soxla sedd bi waaw. waaw moom mu ngi dox moom wax dëgg yàlla ndax xam sedd bi moom jigéen ñi dañuy soxla yooyu moom yaa ma gën a xam waaw fer rafet yaa ngi nii boo ñëwee fii asumba mi day jaay ni muy set yu baax yooyu daal soo jëndee ni muy set ba pare jaat ci man ma jaay la ay fer yàlla ay yu baax daal yëpp yu bëggal sa borom kër daal boo dikkee place Ndeye Xuna da nga am yëpp dëgg yàlla waaw waaw waaw kay yi ñun ñooy docteur yi jeeg ji xam nga genre fer yi yii yii moom day dox waaw yii mooy feri cristal xam nga rek la yii cristal la ba pare yii yëpp ay fer la yii dañ koo nasagul waaye yii yëpp ay fer yu rafet la moom macha allah yoom ku ko am ku ne moom sa jëkkër day day kontaan day bëgg gis nga ko xam nga boo gisee ñu koy nas ñi day am ñoo xam ne dañuy bëgg ay fer te mën a nas moo tax ñuy jël di suñuy fer yu nice di teg su ko defee ñi nga xamante ni dañoo bëgg ci fer yu baax yi te mënuñoo nas su ndikkee ñu nasal leen fer rafet yoo xam ne dañ koo nas ba pare dañuy ñëm rek takk Sénégal jëm kanam. déedéet duñ ko seera duñ ko seera sax xam nga ñun même ñooy jaay prix en gros ndax gis nga yëpp nga gis ne ay paquet la. bu fekkente ne dangay jaayaat soo dikkee dañ lay defal bon prix yewet nga nas feeru rafet jéem koo jaay ñi nga xam ne dañuy jaayaat bu fekkente ne ku munta nas mi tey takk boo dikkee gis nga yu baax yi yëpp ay cristal yu baax yi daal lan daan sax ñu daa fi ne ñooy docteur yi jeeg ñu daa wala nga ñëw ci ñun sa jëkkër da moom dana kontaan daal. mu mel tamit dafay baax pour jéeg gi toppatoo alaaji yi. ndax sedd baa a mën a toppatoo lan ji kay li ma leen wax xam nga góor ñi moom dañoo bëgg yu neexee ay jaljaleek ay cuuraay ak ay niwisat yooyu yépp daal day bëggal sa borom kër te sedd bi sax ci raw waaw jéeg jaa li may digal mooy suñuy tëdd nañ jënd seen dara bu rafet yu weex tàll ah, jënd seen cuuraay yu neex teg ci seen fer yi. ndax xam nga fer yi moom mooy supporter yi mooy supporter waaw loolu daal laa lay conseil kuy tëdd na nga dugalaay say supporter ndax yi moom xam nga rek yaa ma gën a xam ñooy tàccu te dina bëggal elaaji yu baax a baax kuy xeetu baax baax rek boo ñëwee fii di ko fi fekk am nañ suñu wees am suñu njeganaay am suñu parfum am nañ cuuraay xet yuy xeeñ yu neex yëpp a ngi fi daal luy mën a bëggal daal sa borom kër ñun dañ koy am ndax lu baax la ci nag ndax lu ci dolli la ndax lu ci dolli la am nañ ay fer yu jekk am nañ cuuraay dematuma am nañ sa bi am nañ fii la am nañ xaalal ci kaw am nañ bépp kon kon ñun yaakaar naa amuñu benn bu ñu bàyyi kii moom ku ne xam ne lu mu doon yooyu yëpp boo bëggee ndax ndaxal sa yi lii yëpp a ciy bokk ndax ñun di jigéen moom dañoo war a woyof war a seet li suñu bëgg ñu di ko def kon euh, waa décoration yi itam yëpp am na fi loof bi am na fi lépp am na fi am nañ njëganaay am nañ dorop am nañ sarbet am nañ dàll bi ngay duggee boo dugg sa salle de bain yëpp bëgguñu daal ñun suñu dara daal paralysé waaw waaw waaw ñoo ngi ci yëpp ñu ngi ci biir am nañ frotté massage yi am nañ massage xam nga kii moom xam nga su alaaji bu liggéeyee ba sonn wax dëgg yàlla bu ñëwee war nga koo bëgg a massé ko ci ba mu baax kii tamit kii tamit ku ne xam ne ne frotté la faroote bu baax la am na lépp sa alaaji bu doxee ba sonn macha allah war nga ko ci faroote ndax ñun moom luy bëgg suñu alaaji rek moom la ñuy def surtout ñun nag léegi sax xale yu ndaw yi lañ ko bëgg a bàyyi dañ leen jàngal ndax moom suñ dara du bàyyi suñ dara du manqué kii ku ne xam ne déodorant bu cher la déodorant bu neex la foo ko laal sa alaaji boo ko dem may ndox boo ko jegee sax ah, dana xam ne yow mii mm, fonk nga ko ndax fonk sa yi rek yaay daf xeeti baax baax yi dara amul nag lu fi manqué lu ngeen fi soxlaa rek am na fi moom waaw kon daal ñun moom am na ci nag yoo xam ne dañ koy dëxëñ lii yëpp am na fi waa lii tamit pour dugal sa biir néeg la orne la rek kii orne la euh, gis nga ko nii waaw ci décoration yi la yëpp am na fi waaw wees bi am na waaw waaw waaw xam ruus moom dañ ko faral di taamu ndax ruus duñ ko yàq fenn ndax ruus moom lu mu ànd rek yaakaar naa loola day bëgg ci lay nekk waaw yëpp am na fi am na ci yoo xam ne dañ koy xaw a dëxëñ xam nga yii moom dañ koy dëxëñ ndax boo ko dëxëñul boo ko waxee chance bi day dem moo tax moo tax dañ koy dëxañ waaw d'accord duñ ko mën a waaw kii moom kii pour xef ci fer la wala nga def ci sa cuuraay bu neex cuuraay toppet bi ak yooyu moom lañ ci def waaw ko tax a jóg waaw am nañ peignoir am nañ sarbet am nañ yëpp moom daal nuyu set ak yëpp loo leen fi bëgg daal moom am nañ ko dañuy ak dara yi am nañ dara yëpp lañu am dañuy defar ba mu baax moom waa dukk dukk yi tamit ngi nii am nañ tamit dukk dukk dukk a ngi nii bii ku ne xam nga ne kii moom dukk dukk la dukk dukk la moom bii mooy dukk dukk bi moom ku di jeeg boo ko amul it war nga ko def ci sa gaal baa nga def sa waxane ndax kii day gàllaaju jeeg te mënut a ñàkk kii mooy gàllaaju jeeg gàllaaju jeeg kii mooy gàllaaju ah. moom ku ne xam ne ne rouge bi tamit dafa baax ndax boo amee ceente da nga ko bëgg soo amee ceet da nga ko soxla kon bii ku ne xam ne ko ruus bi moom rouge bu ànd ak noir boo amee ceet da nga ko bëgg boo amee ngénte da nga ko moom loolu waaw macha parfum yi xeet yëpp a ngi nii nag yu yëpp am na fi loo war a loo war a defoo rek am na fi ba mu baax waaw mën na xam nga damaa xaw a bëri kees ndax euh, soo xawee ji jëm mag yu bari danga koy bàyyee xale yi waaw ñun moom bàyyiwuñ dara non duñ ko seeral dañ ko yoon ñu bëgg ñu yëpp am ci dañu bëgg xale yi di ci defar ba mu baax ndaxte xale bu bëggee nekk néegu sayam danga koy wàññil bagage yi mu ci naxtaan alaajeem ba di ci mën a am loo xam ne dina ko mën a xariñoo ëllëg di ci am di xam nga boo bu bëggalee sa alaaji dañ ci am yàlla dañ ci am yonent bi mais soo fekkee sa alaaji moom da nga kaa bëgg a xàttit xàttiti ko mënul ne man du ma ko digal sama benn doom te du ma ko digal benn xale yëpp waaw macha allah waaw ah, ah, ah ñu góorgóorlu góorgóorlu am nañ gowe VIP am nañ gowe saaf am nañ fii la am nañ faala am nañ dëbatuma lépp am na fi am nañ tamit bu bëriñ tamit am na fi ayca comme ni ma leen ko waxee woon rek euh, gis ngeen ne daan nañu dugg ci biir marché bi xool euh, bagage yi nga xamee ne jigéen euh, a xam di jënd si la daal di bokk ndax bokk na ci li nga xam si ci ak jaamu yàlla la ba tax tamit jigéen ñi tamit xam ngeen ne tamit dara ñëru leen lu di bëggal seen alaaji asi saa su ne di leen toppatoo ba tax na tamit ku ne xam ne tamit Euh, période yu seddaay bi ñu dégmal dafay daal di baax ñu daal di dugg euh, daal di jënd bagage yi jigéen ñi ngir toppatoo tamit euh, borom kër yi ndax lu ci am solo la toppal nañ leen lépp nag gis ngeen tamit nag clients yi ñu ngi daal di jënd si bu baax a baax nii rek lafay fay daal di ñu leen di sant bu baax di leen gërëm yéen ñi nga xam se ne ñeen doon topp ci 24actu point com di leen jox dox daje ci beneen yoon yaa ngeen di